aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñi seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bi ñu nekk muy jumaay Touba fii ci jullikaayu ayit bi ci benn fan ci weeru sawaal ñuy célébrer feetu korite ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha alxalifatul am di tarixatil muridiya ak mboolem njabootug Serigne Touba gi li ngeen ko xamee nag GMT TV ak télévision yi li muy lëkkaloon lu mel na Lamp Fall TV ñoo am bégte nag di fexe ba mbooleem li nga xam ne mooy xew-xew yi xew ci jullikaay bi ñu leen koy won en direct euh, ci fii ci Touba. Euh, julli gi nag niñ ko xamee Cheikh Mouhamadul Mountakha al Khalifatul Am di tarixatul Mouridiya moo ko fas yéenee teewe waaye nag Serigne Fadul Mbakke moom Cheikh Abdoul Khadir. mi nga xamante ni mooy diriger julli gi def xutba bi bu noppee jox kàddu gi sëriñ bi mu joxe ay kàddu yu ndenkaanam waaye incha allah li tàmbale ci mise en place bi muy dalal kilifa yi yi nga xamante ni ñoo fi ñëw muy ay kilifay diine ay kilifay aada ak mbooloo yi nga xamante ni ñoo jóge ci dëkk bi di ñëw ci barab bu tedd bii di fi jullee si feet korite bi dara du leen ci ump incha allah di ngeen gis peese di ngeen gis njàngum xasida mi ñu fiy def waaye di ngeen gis itam dugg kilifa yooyu ak interview yi nga xamante ne ni danañ ko def incha allah ci bu ñu jullee ba sëlmal kon bu leen tàqalikoo ak ñun incha allah lépp dina leer di ngeen ko gis fii ci GMT TV dara du leen ci ump kon jërë ngeen jëf ba ci kanam daaxilaamiya ilaa sukuuri man saxara lil xalq baqaayi saaman rabbiya maaliki xaliili wal habib waxat maa niya daaya tabib dañ ko daa junjoo rek jéem a xam sëriñ bi te dinañ ko dund jéem a xam sëriñ bi jéem koo dund nu koo xam ci loolu nag am xas xas wa xillaal suñ lépp jëmale ko yàlla xas wa xillaal nag mënut a am ci loolu dëddu adduna dëddu adduna buñ ko dee wax du ñàkk lekk ñàkk a naan du ñàkk denc du ñàkk dëkk da du àdduna fam la mu ci ci gën a gàtt mu ngi da ngay jublu yàlla te dara àdduna du la saf bu loolu amee nga daldi di nag eh, nekkal sëriñ bi yittewoo ko jéem a xam aw doxinam mën noo sëriñ bi mën nu koo liggéey lu lu kawe am xas wa la te def ko muy suñu yitte di ko di ko jàng di jàng doxinam di ko jéem a xam di jàng doxinam loolu sëriñ bi moom rawanam xel waaye nag lu ma tax xamle xamle na ko wane na aw doxinam itam lan mën nañ caa xamee lañ ca lañ ca lañ ca àttan sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi boromam nag moo ko tànn bàyyi ko ci biir jaam ñi nekkal ci boroomam di woon jaam ñi nañ war a jaamoo suñ boroom suñ kem kàttan loolu kon loolu moo fi moo ci bàyyi moo ci war a bàyyi eh, sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi rek waaye boromam ko tànnal nag bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boromam wane ci nañu war a nekkale su nañu war a jaamee suñu borom loolu nag dara da ci lu jiitu xasu wajhillah jublu jublu suñu borom ñu ñu ñu ko suñu lépp wan gannaaw lu dul moom beddu àdduna te daal àdduna bañ noo saf mu nekk ci nag nekk ci ni mu gën a la sëriñ bi nekk ci ni mu li mu fi li mu fi bàyyil kon lanu ci war a bàyyi rek moo di li mu fi bàyyi li bàyyil suñ lépp jëmale ko suñu waroom suñ lépp mu jëme ko nag ci sant sëriñ bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko liggéey bi nag moo di nekkal ko ci lim lim lim bëgg moo di sax dàkk ci jaamu yàlla ci sunu yonent bi sax dàkk ci jaamu yàlla ci joxe suñ lépp daray àdduna bañ noo saf loolu lim ñuy indil du ñu taal dara lu suñ boroom ak àllaaxira ka nu jëm du ñu taal àdduna du ñu taal suñ bopp du ñu taal àdduna waaye nag ni li tax suñ boroom tànn sëriñ bi mu nekk ci biir jaam ñi nekkal ko ci jëwoon jaam ñi nañ ko war a jaamoo loolu moo nu ci bàyyi loolu rek moo nu ci bàyyi kon nu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax nan góorgóorlu ci nan góor bu baax a baax ci nan mën a sant sëriñ bi ci nan ko mën a nan ko mën a liggéeyee ci li mu nu fi bàyyil muy sax dàkk ci jaamu yàlla rek ci suñ lépp nag na ko suñu borom diglee suñu kem kàttan na mu ko teree nu doo ko def suñu kem kàttan na suñu borom bëgg du ko bëgg suñu kem kàttan lam bañ du ko bañ suñu kem kàttan sax dàkk ci loolu loolu moom rek lañu mën a liggéeyal sëriñ bi mën na ko mën a sant itam kon góor góorgóorlu bu baax a baax dara waru fi ne waru fee bàyyi loolu loolu nag ci kattan suñu borom ak xereñam du duñu yàqal dar lan war a am ci àdduna ci ci yiw duñu xañ dara lan war a am ci yiw te loolu rekk nag itam mooy tax nu mën a sëñ seen sëriñ bi mooy tax nu mën a sax ci liggéeyal ko kon nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax sax dàkk ci li mu fi bàyyil man moom moo niy defaral suñu lépp moo niy sàmm ci wàll yëpp biir ak bitti adduna bari nay pakk lool waaye ku sax dàkk bu nu saxee dàkk ci li nga fi sëriñ bàyyil warat noo tiit dara dañ koy tënk rek ci mu sax dàkk ci wéetal yàlla sax dàkk ci dooloo sëriñ bi diggam ak borom te nekk ci li mu nekk loo buñ ko defee duñ waru noo tiit dara du jaaxle ci dara duñ ragal dara te dara mu du man ci woon ci noonu dara kon loolu mooy li ci am solo nañu góorgóorlu bu baax ci nekk li sëriñ nekk ci nekk sëriñ nekk ci li sëriñ bëgg ci nekk ci li mu nekk loo te wéetal wéetal suñu borom gën a wéet waxtu wu ne ci biir bitim ñu gën di wéetal suñu borom ci lépp di gën di doyloo sëriñ bi itam nag di gëm borom ci lépp loolu mooy li nga xam ne eh, buñ ci buñ ci góor luñ ci gën a góorgóorlu rek gën a yëg suñu bopp ci gën a moom suñ bopp ci tënki-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna lu luñ ci gën a nekk rek di gën a moom suñu bopp ci ci wàll googu tënk-tënk yi àdduna ak gàllankoor yi àdduna te bari na lool waaye loolu rek moo ñu ci mën a musal kon bu nekkee ci loolu loolu te li ñuy indil mooy taxi àdduna ak taxi àllaaxira rek muccu àdduna muccu àllaaxira defaru àdduna defaru àllaaxira loolu rek la moo moo ci moo ñu ci dikkal kon noo ngi sant ñëpp di balu ak ñëpp dénkaane nun ñëpp nu balonte ak bu xas wajhi laay amee jubbu yàlla bu amee lu tootal dara loolu yàlla ak alaaxira ku tël ku tël ku tëlul dara nag loolu yàlla ak alaaxira sa lépp ak yiw la ndax dootoo xëccoo dootoo xëccoo ci dara àdduna dootoo jëmee ci sama romb jaam jenn yéene ji ñaaw waxuma laa jëfe ga loolu noonu rek la demee nan góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci gën a sax dàkk ci wéetal yàlla gën a sax dàkk ci jaamu yàlla loolu mooy ci la suñu lépp nag suñu ci yiw adduna suñu yiwu adduna ak si yiwu àlaxira suñu yiwu àlaxira lépp ngi ci loolu kon jërë ngeen jëf nanu góor bu baax a baax a baax te gannaaw ban sante cant goo xam ni yëmul fenn ndax ban suñu borom booleeg sëñ bi rek boobal sun ajo mel na ni suñ aj booba ajo fajo ndax euh, sëñ bi doy nañu ci lépp doy nañu ci àdduna doy nañu ci àllaaxira nit dafa mënut ñàkk nekk nekk ci dara kon nu nekk ci jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ndax noonu la bëgg ci noonu bu ñu ko defee rek suñ lépp yéwén jërë ngeen jëf ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay yéen weesu ñoo ci sant bu baax a baax a baax a baax ndax taxawaay yi mat na rafet na jub na loolu lépp tawféex ju ñu am rek moo nu ko may muy tawféex sëriñ bi sëriñ bi tawféexi boroomam la kon tawféexam mu ngi nuy womm ci lépp loolu kon sant yàlla rek moo nu war ak nag jéem a nekk ci loo xam ne ci leen ko mën a sante ci leen ko mën a liggéey la jërë ngeen jëf. dañu góorgóorlu bu baax nag maanaam góorgóorlu bu baax ci muuri koor yi ndax yitte juree la ñu koor gi kon nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax suñu kem kàttan